mooy sama sama doom la cousine am la quoi aji Kumba euh, Birame ñu euh, euh, mën nga ñu wax kan mooy benn ancien lutteur la boo xam ne bii ci kii Fass laa débuté fa laa bëree sama carrière ba bi ma fi jógee sax maa ngi fin de carrière. mais foofu laa def sama carrière mbappat ak arène yëpp ci ginnaaw Mbaye Guèye ak écrit face ak bi ma génnee nag foofu toog booleeg nag liggéey bi maa ngi woon non kon tamit agence Sonatel depuis poste Sonatel euh, foofu laa doon liggéey boole ko bëri bi et bi ma de lutte formé ay jaar naa ci am tuuti lu ma ci xam. xëy na bariwul waaye am na tuuti lu ma ci xam ba koo baaxee rek samay réew samay doom samay rak samay yi nga xam ne yi bëgg nañu bëri te comme bëree xew na eh, ma formé lii pour ànd ak ñoom jàppale leen loolu mooy sama xalaat ba ma formé école de lutte bi. waaw mën nga ko sax xam-xam. waaw mën nga ñu wax bi nga tàmbalee sa école de lutte bi sàkku xam-xam ba léegi hmm. naka la sa école bi toogee. waa école bi bi ñu ko sosee ba léegi ay jafe-jafe rek lañ ko solee parce que école bu fekkee ne léegi da ko sos amul fay. inscription rek ngay def na da ñëw joxe sa 6000 francs ñëw bokk amul fay ak élève bi da nga koy entraîné te dina fay dara dégg nga loolu lutte rek am école boxe karaté judo foofu dem booy dugg da ngay te ba ngay fay par weer le 5 ba fay dañ lay génne. Eh, Sénégal nag fu muy def xaalisam dina ko fonk lu mu ñàkk def xaalisam du ko ko fonk mais école bi la jafe-jafe yooyu lañ ci rek bëgg-bëgg moo ñu ci bàyyi ak. Euh, passe temps la bu ñu nekk mais affaire bu metti la parce que da nga ciy liggéey doo ci am dara da ngay former xale ba mu taxaw sax buy dem doo ko yëg da ngay jékki dem na benn équipe kooku amuñu kenn kuñ ci jàppale CNG bi moo fi waroon a nekk war a indi ñu critères yu leer nga xam ne booy dugg da ngay ay kayit yoo xam ne lii moo la fi dugal lii moo la fi génne mais amuñu ci dara boo ko signé jox leen sax duñ ko appliqué waaw mais dañ ci dund muy dund bu métti ñu ak ñoom waaw. mën na loo xam lan mooy bilan wu sa école euh, ci saison bi ñu génn. waaw saison bi. Euh, dafa dama amoon ay jafe-jafe parce que ñun bu ñu affaire waxee affaire manager yi gars yi dañ ne ñu signé ak ñun ñi nga xam ne ñi ñoo bëgg a gérer suñuy club indi ay problème yu garaaw problème yooyu bi ñu ko indee ñu nit ñu fépp toog xaar yàlla xam ne lamb ji ñun ñoo ko moom mbër mi bëri ba bàyyi bëri yor club am yor ay gonem di entraîner moo war a gérer ay xaleem gaa yi di ñu xeex CNG bi ànd ak quelque gars di ñu xeex eh, ñu ne ñu gëm yàlla toog mais nag ci biir loolu fexe nañu ba organiser ay lamb ak avec yi gis ñu affaire bi métti te ñun ñëpp ñoo ko jànkonte woon lutteur yëpp sauf benn lutteur rek moo àndul ak ñun mais ñun ñëpp ñoo ñi ci des ñëpp ñoo àndoon nekk benn benn manque deux moo àndul woon ak ñun mais ñi ci des ñëpp ñoo bokkoon nekk benn ñu formé ñu jox ñu xaalis Alaaji Njaay jàppale ñu bu desistir yi te jëndal ñu licence ñu def assemblée formé suñu biir nga xam nga léegi ñun bu ñu demee loolu ñun ñu dàqu ñu leen ñëw ne dañuy ànd ak yéen liggéey ñu dem ba ci biir gars yi si boppam dégg nga ne kat ñun duñu ànd ak tey duñu ànd ak suba ci la wax naa la ko sax ci lañu ñu tubaabu joor mi dem seet Alaaji Njaay waxtaan moom Alaaji Njaay déplacé ko xaalisam jox ñu pour ñu ànd ak suñu lamb léegi ci biir loolu ña àndoon ñun ñëpp tey jii ñooñu tey ñoo benn groupe bi la parce que association des anciens lutteurs la maa nga jiite kii mooy tubaabu joor mooy secrétaire général bi man maay trésorier bii ñu fal tamit tubaabu jor mooy président bi man maay secrétaire maay trésorier bi ñun ñëpp ñoo àndoon ñëpp benn màng de rek moo àndul woon ñun parce que moom CNG la àndal ak ak manager ñu ñu nekk benn gaay kay ñoo dem ba ci biir wone ay wor ay tet euh, dem dem seen yoon ñu ne ñu tok mën a yoon ñu bok tok xar yàlla di ànd adina ngi ni yàlla day dem ba andi lépp mu leeraat suñu biir parce que ñu dàq ñu kenn boo ñu kenn loolu tax euh, ñaari groupe yi am mbëri ba am mbëri mbëri euh, ak ancien bu la am waaw ñan yan ancien lutteur yi aussi dañ leen di reproché ngeen bëgg organiser ay lamb ay lamb bëgg nekk promoteur bëgg nekk manager en même temps est ce que remarque boobu c'est justifié déedéet du question dañoo bëgg a doon ay banage da bëgg yor déedéet école de bi ma yor tubaabu jor yor ko kële yor ko mais école de bi soit maa ngi doon manager man entraîneur boo xam ne bi wóolu naa ko mu doon manager bi man ma yor affaire technique bi moom ma yor affaire manager affaire promoteur ñun du ñu ay promoteur Alaaji Njaay mi ñu génnoon xaalisam tëggal ñu làmb te moom du man ma promoteur te gu may làmb mais dama leen di jàppale parce que boobu gars yi dañoo xeex ànd ak CNG bi ne suñuy mbër du ñu bëri ànd ak euh, kii ànd ak euh, promoteurs yi yi fi joxe tëgg làmb yi ànd ak CNG far def nii du ñu xeex ba suñu école yi bu ñu gëmulee day tas waaye nit ñu def ñu seet ku ñu dimbali mu jox ñu xaalis ñu tëgg loolu tax ñu tëgg mais du question ñun ay promoteur lañ dañ doon tëgg pour suñuy boy booy bëree. waaw ah, kon lan mooy finalité wu boo leen di organiser en tant que ancien lutteur. Ah. Euh, gain yi possible yi ngeen ci mën a am pour pour lan lay seet. mais gain yi kay mooy am lu ñu defaat suñu hmm. bi ñu defee star auto moo ñu sponsorisé. ñu exposé am nañ suñuy taxi président mu ngi ñu war a recevoir fii de pour remise de yi mhm. loolu lépp tey jii dañuy xel li ñuy war a am mhm. kenn ku ci nekk bu ñu ci amee dara kii am ma am ñun ñëpp ñun ñëpp ñu am comme école yi amul fay amul dara kenn duñ ci dimbali ci dara see jàppale ñu kenn jàppale wuñu mais xanaa kay dinañu liggéey loo xam ne nii suñu école dañ ciy dund waaw waaw euh, lan mooy sa kàddu bu mujjee Birahima waaw di kontaan ci seen déplacement ñëw fii seet si ma te ay gën a taxaw nekk fii man def naa carrière waaye carrière bi am na ñeneen ñu ma gën a fort carrière man soxlaa woon rek boo xam ne bii dama naan fooye bëri rek waaye sax du ma woon bëri bu ñuy soow waaye sant naa ci yàlla foo naa ci ba génn ci e tey jii bu ngeen ma tànnee ñëw seet sama ni ma laaj sama xalaat ma sant leen këram yi di sant yàlla euh, nag yàlla jàpp leen ba seen liggéey tamit ñu réussir làmb ji may ñaan yàlla yàlla di ko teg ko ci yoon ba suñuy doom yi seeti setaat ñëpp jariñu ci. ñu ngi lay ñun